ci biir milice yooyu xam leen ne am nañu aussi ñoo xam ne ñoom ñooy les mercenaires de la plume et du micro mooy tey boo xoolee ci télé yu bari ci Sénégal ñoom ñoo ko accaparé ba ci borom deux centimètres ba nekk Walfadjri nee na dafa génn tey nee na Tunkara da koy saaga duma ma tudd euh, turu beneen nit bi mu fa tudd waaye sama bopp laa xam da ngeen koy ne Tunkara nee na nga génneel ko vidéo boo xam ne yow daf lay saaga ndax man li ma wax du deñ dama ne wal fajiri ndenkaane Sidi Lamine Niass la te Sidi Lamine Niass bi muy defar wal fajiri dafa ñaan yàlla buñ ko fa dugalal benn mercenaire te Aliou Sow est un mercenaire il a loolu laa leen wax Aliou Sow mu wal fajiri nee leen ko man ma ñaari salaire la am am na salaire wal fajiri am na salaire u état bu Sénégal maanaam bu ma nee bu senegal yéen ñi dégg Aliou Sall muy wax Aliou Sow muy wax dem leen ngeen déglu ay kàddoom démb ak ay kàddoom tey c'était le même Aliou Sow qui tapait sur la table kii crier partout Aujourd'hui, il est devenu la même Aliou Sow ki ne dit plus rien. Il na fekk que défendre le gouvernement de Macky Sall. amul beneen liggéey bu Aliou Sow di def wal fajri léegi nag gis naa ko démb mu jàkkaarloo ak Khadija Maykor mu ne ko waa Pastef dañuy saaga ma laajaale Aliou Sow ne ko mu génneel leen carte de membre Ousmane Tounkara bu bokk Pastef parce que man sama waxu démb mooy sama waxu tey nee naa leen Pastef nañu ñaan yàlla Ousmane Sonko gudd fan lool te wér parce que man maay un des rares personnes boo xam ne man maa moom sama bopp maa moom sama koom-koomu bopp maa moom sama énergi wu bopp maa moom sama man-manu bopp te Ousmane Sonko laa bëgg fii laa ko teg fii ci bakkan bii fii laa ko posé waaye moom laa gëm néew ma gëmuma keneen waaye li may def nii Ousmane Sonko képp moo ma ko jaral ci àddina c'est le projet et ce projet l'incarnation de ce projet c'est le président Ousmane Sonko je n'ai un seul candidat présidentiel kooku le président Ousmane Sonko la léegi nag bari naa ci ay morom ndax xam naa ne démb métti woon na lool tey nak bari naa ci ay seexandoo moom léegi moom Ousmane Sonko ay Baye Fall sax da ko am sama copain yëpp ñëw nañu boromu billaay wallaay yeeg boromu tabaar fakalla yeeg boromu gëmuma sonko yeeg boromu sonko du fi am daraak yeeg gis naa ñëpp léegi macha allah donc loolu moo doon ñun suñu mbébét sii suñu ko nag sonko ñun sii sawuñu ko dañu bëgg ñëpp bokk ko ndax macha allah comme niñ koy waxee ci lislaam ñu ne yéene néeg la te borom moo ciy fanaan donc li ma yéene sama bopp moom laa yéene ñëpp ci Ousmane Sonko ñun ñëpp nañ ko partagé ndax lu baax ñun ñëpp ñoo koy bokk ndax li kilifa yi daan wax toujours rek nee nañu doom bu baaxee doomu ñëpp bu bonee nag doomu yaayam képp donc Ousmane Sonko aujourd'hui c'est le fils de tout di tous le Sénégal loolu moo waral may dellu siwaat di wax ak waa ji Sall am na ñu ko ne soxna Batoor maa ngi lay jéggalu de passage soxna Batoor ndax xam naa ne wax dëgg yàlla ku xool benn samba boy boo xam ne moom moo yées ci mbindeef wala moom moo yées ci réewu senegal benn xatkaana bu tekkiwul dara benn jaamu tukkuleer boo xam ne sawaay moom laa lay wax ni ma xam ne àdduna axiru zaman la ñu nekk ñu ngi ci mujjantalu jamono ndax yonent yàlla lii la wax dafa ne woon da dem ba jaam bi moom mooy ñëw doon kii jiite bo eh, maanaam géeram tey gis nañu ku mel ni Farba benn géwél bu tekkiwul dara boo xam ne un géwél boo xam ne dafa ragaloon sax nekk candidat député dafa ragaloon nekk candidat maire bi dëkk bi mu dëkkoon parce que dafa yaakaaroon ne bu nekkee candidat ñooñu duñ ko accepté ndax deret bii daw ci yaramam kooku moo nekk Sénégal tey il nous a sacrifié le pays avec son ami Katkaana Macky Sall pour yéen ñi koy xaar pour mu gore da ngeen di def njuumte de Macky Sall mënta gore parce que amul deretu gor ci yaramam deretu gor dafa am importance xam nga ñu bari xamuñu président Ousmane Sonko man na comme ni ma leen koy waxee du ma gewel raxuma gewel duma historien raxuma historien bariwuma xam-xam waaye am naa xam-xam bu ndaw te xam-xam boobu ba may màgg xam nañu les Sané les Sonko xam nañu leen on les kone ñooñu ay ñancoo lañ leen di wooye ci soose am na sax wooy buñ leen woyaloon booba xam naa ne nag baat bi neexul waaye danaa ko essayer anyway kedo kana majoba kedo kana majo kedo kabu kana majo lamini ko demba borita lamini ko demba borita demba mambori fafale aki fafale aki sansanala ke sobanta munko banta kabu ñanco te bor la kelela kabu ñanco du daw xeex xam nga Macky bul woon nit ci terrain boo xam ne moom fa la baaxoo gis nga quelqu'un comme le président Ousmane Sonko ñooñu ay kaabu ñancoo lañu ay ñancoo lañu ñancoo du daw xeex boo woowoon président Ousmane Sonko tey ci wax ju bon da nga koy gañe parce que loolu du seen manœuvre boo ko woowoon ci sàcc danga koy gañe parce que du seen maneef boo ko woowoon ci fen loolu da nga koy gañe parce que du seen manœuvre mais boo ko wooyee ci xeex loolu doo ci am ndam parce que ay kaabu ñancoo lañu boo xamul luy loolu da ngay dem nga laaj histoire xam nga histoire li ñuy ne toujours l'histoire reviendra xam nga histoire ñu bari xamuñu histoire boo xoolee bañkat xam nga lii moo tax ñu créer li tudd ADN ADN biñ koy créer c'est parce que dafa am dañu bëgg a xam doomu aadama bi dañu bëgg a xam deretu doomu aadama deretu doomu aadama lañu bëgg a xam maanaam lan la rax parce que booba bu ñu xamee góor yi bu ñu xamee góor yàlla yi ñu dëgër dëgg-dëgg dañuy bëgg a xam ci ban sang la ñu bokk bu ñu gisee traître yi tamit dañuy bëgg a xool ci ban sang la ñu bokk donc Macky Sall tey boo jëloon deretam nga jël dereta ma maam ya nga xam ne ñoom ñoo doon nax suñu maam ya maam ya nga xam ne ñoom ñoo doon wëlbatiku di dem ci tubaab yi di contrôler di comploter contre suñu maam yi da ngay fekk ne deretu Macky Sall ci ñoo ñu la jóge bañkat yi tamit boo demoon tey nga xool deretu bañkat yi nga xool deret bi ñu rax di nga fekk ne ñun ñiy bañ ni yépp ci deretu bañkat yooyu lañ jóg loolu mooy dégg loolu moo tax ñu créé ADN créé wu ñu ADN pour maanaam galgal ay opposant politique wala pour utiliser ko pour ay tappale wala pour utiliser ko pour ay njuuñ njaaj comme yéen mi ngeen koy defee xam nga àdduna bi tubaab bi day créer lu positif pour doomu aadama bu mën koo njariñoo waaye borom pexe yu baax yi buñ koy utiliser pour lu baax borom pexe yu bon itam ñu ngi koy utiliser pour lu bon